المصايا يا ويمانا إلى تأميم المصايا وينا لنقينا فاتا قد شاءت رياسته حتى وقد كنتم من الرحمن والدار وقد شاءت رياسته حتى وقد كنتم من الرحمن وقد والدار

ngay maam alimaan jon dundal yow dundal ba say bay di baawaan nga yàgg fi lool Ahmadu Mansour gurga dagan naw ba Mansour maa mooy baayu sëñ Bay Mansour moom la nu fal baaya fi ngeen di ñu màggal Ahmadu Mansour Alaaji Mansour Malick baayu sëñ Bay Mansour ma da ko sopp alima ñoon fee jallaañi waaye Mamadou Mansour ana ñi bëgg Ali Madan Mamadou Mansour Ali Madan laañi waaye Mamadou Mansour atala awlata yal na Mansour Malick baayu sëñ Bay Mansour na ca def leen nii ñu màggal Mamadou Mansour alima jor laa ñuy waaye Mamadou Mansour ana soppay sëñ Babacar si punu sàggan ana ñuy bëgg sëñ Babacar si punu sàggan mbay côté sàggan ñu dem bala mbay côté sàggan ñu dem bala mbay côté sàggan ñu dem bala way côté sàggan ñu dem bala way côté sàggan ñu dem bala mbay ñoon la ñuy wayal mbay dafa ànd ak mbayam yow da yéen a ngi liggéeyal Seydi Mbaye yéen a ngi liggéeyal Seydi Mbaye ni koy liggéeyal Seydi Mbaye bis bay faatu da gay ne law xandoor yeewoo di aljaana Cheikh buy faatu da fay ne law xandoor yeewoo Maulana ay ca ñu màggal Ababacar ah, ay ca ñu màggal li Babacar bu nu sànni ci Babacar bu nu sànni ci Babacar xalifa Babacar si day nitu yàlla nitu yàlla nitu yàlla dakub sëriñ daa bokkul safee ne ay bu nu sànni ay ci Babacar bu nu sànni loxoy ca kaw loxoy ngeen màggal Ababacar ah, bu nu sëriñ Babacar kii ay ku ko màggal da ngay jaxe bu nu sànni isa akal da ay ku ko màggal da ngay jaxe bu nu sànni Moussa Kame daal ku ko màggal da ngay jaxe bu nu sànni wala Kandame daal Alima jërëjëf yal na yàlla taxawu la ci barke yeneen ci bi. ñu ngi doon dugg ñu Alima jërëjëf. Adja Alima jërëjëf. waaw jërëjëf kontaan naa kontaan naa lool. ñu ngi dellu parcelle maa ngi Oustaz Pam Ndiaye ñu ci biti. incha allah incha cër bi nga jël jox ko sëñ rek doy na ma sëñ. jërëjëf.

xale bu effacé nga da nga effacé wu. ngeen gis la fenn. ngeen dégg la fenn. yow Fatima Diallo. waaye bu ngeen ko defee ay mos ah. la ko fenn. sa lépp benn la. a fost vând, a sunt jurnalist pe care. Canal a bă pe Dakar Instant. loo wax ci Dakar Instant. Dakar Instant nee naa moom ngeen di seetaan à l'instant. bu duggee YouTube tapé Dakar. ñu yaakaar ne Dakar leneen ngay def nga bind instant ndax instant bi nga toll da nga ko war a dund ndax dañ ne le passé c'est le passé le futur n'est pas encore venu donc vivons l'instant fi nga toll dund ko du jour au jour Dakar instant yéen a ngi ci instant bi di yëngal instant bi te xam naa ne instant bi du ngeen ci yem ndax instant bii ni dafa nekk instant boo xam day dem ba mujj gi day nekk instantané instant bi sa loxo boo xam ne nii si écran bi léegi nii danga may danga may gaañ ay xoolal may wax muy fooyee ba liggéey ba sooy sur Dakar instant